tey nag ñu ngi leen di andil gan bu bees seen yëf suñu yëf ñun ñëpp suñu yëf bopp KP daal benn application la bu leen di permettre tey yomba yombalal leen seen dund yéen ñëpp waaw mu ngi leen di permettre tey ngeen def transfert gratuit dépôt gratuit retrait gratuit si bépp réseau EDK voilà donc ñu ngi leen di ñaan ngeen def téléchargement bi en masse parce que suñu moomeel la ñun ñëpp ñu ngi leen ci invité nag. lan mooy njëriñu KP. bon njëriñu CAP vraiment mooy euh, yombalal dund bi facilité dund bi euh, toucher population yëpp couche population bi baykat yi gis ci seen bopp nappkat yi gis ci seen bopp vraiment jaaykatu jën yi gis ci seen bopp ñëpp daal gis ci seen bopp yombalal euh, vraiment dund bi pour ñëpp ñëpp ñëpp daal ñu ngi fi pour ñëpp. waaw sénégalais dañ ci war a jàpp parce que pour la première fois mu am application bi nga xamante ne elle est 100 pour cent sénégalaise. waaw parce que bu ñu sañoon tamit dërëm bi bañ a génn gaal bi donc ñëpp si war a jàpp te en plus de ça ñëpp war nañ ci gis seen bopp parce que zéro moom on peut pas proposer mieux c'est zéro dans tout le réseau EDK. buntu kër sax nga am possibilité wu mun a recharger mun a effectuer say dépôts say transfert vraiment yombalal ko ñëpp mu accessible fépp tey booy yónnee transfert c'est zéro di nga am possibilité de def ay requêtes comme nii par exemple nga soxla yónnee kenn. demande pour mu fay la peut-être benn bor wala benn facture di nga am possibilité wu lancer requête bi nit ki day valider rek sa xaalis nga jot ko sa biir kalpe voilà ak yeneen ak yeneen ak yeneen sans compter que nous sommes les moins chers dans la plupart des services que nous proposons yi concurrents yi am KP un produit purement sénégalais 100% sénégalais qui facilite vraiment la tâche pour tout euh, pour toute la population Par exemple, avec KP, tu peux recharger sa compte à travers ce portefeuille, soit avec sa Mastercard ou sa carte Visa. Tu peux recharger ce compte KP. Tu peux tamit euh, xaalis bi nekk sa yeneen compte yi nga recharger ci sa compte KP mun nga jënd crédit à travers KP donc euh, on n'a vraiment pas de limite pour yéen avec tous les opérateurs voilà nous euh, ñun daal ñu ngi fi pour sénégalais ñu ngi fi pour waa askan bi lépp li nga xamante ne tey ça permet de faciliter euh, yenn transaction yi wala yenn services yi def ñu ngi ci biir comme mu nekk paiement de facture comme mu nekk paiement de de transport rapido lépp daal facture am nañ woyofal am nañ euh, Sénélec nous avons aussi pour Sen'Eau voilà ak yeneen ak yeneen yuy ñëw vraiment bëgg nañ daal nit ki daal lépp lu mu soxla rek. ñu yombalal ko ko à travers l' application. paiement marchand paiement de salaire euh, voilà yooyu yëpp daal mi ngi ci biir nous sommes là aussi pour les entreprises euh, voilà pour tout ce qui est euh, paiement collectif. ko pour arnaqueurs yi. si très très sécurisé parce que am nañu ay certification bu ñuy woowee CIDSS vraiment benn certification la bu difficile bu jafe am te on a quand même réussi à l'avoir xam ne ne vraiment nous on prime pour la sécurité quoi qu'il en soit avant tout parce que nit ki tamit confier la lu mel ni xaalisam euh, daf ñu war daal ñu sàmm ko donc def nañ ji suñu matuwaay yëpp. ndax ñu ngi xaar au niveau international. oui loolu kay mi ngi ñëw très très bientôt comme ni mu leen ko waxee rek on va faire en sorte que vraiment mu mun a accessible fu ne waaw suñu mbokk yi nekk tamit à l'étranger mun a yónnee fii mu nekk daal lu yomb. te lu te lu accessible surtout on mise beaucoup sur l'accessibilité sur la sécurité et sur la et sur le moindre coût voilà. Euh, euh, Calpé Kpay plutôt euh, c'est conçu par des Sénégalais pour des Sénégalais l'application est face à Calpé la boo xam ni dañ ko def pour sénégalais yi te sénégalais yi ñoo ko defaral seen moroomu sénégalais bu ñu ci côté application bi bëri na ay njëriñ yu ci am lu mel ni paiement de facture crédit et la par rapport au crédit damay signale que moom opérateur bépp lay jël amul exception Euh, am na leen lu ñu am loo xam ne peut sax ñeneen ñi amuñu ko mooy demande bi maanaam tey jii man mën naa euh, def demande maanaam ñaan la crédit ci application bi yow nga jot ko confirmer man ma jot sama crédit donc dinañ fay lu mel ni euh, TNT Aquatec Woyofal facture Sénélec aussi dañu koy jël et parmi tant d'autres bu ñu ñëwee ci suñu réseau EDK Oil c'est-à-dire low price jolof ci kër ak tefes gi euh, lépp loo xam ne euh, jënd nga ko fa am nga possibilité fayee ko ka pay et que paiement yi je confirme que que ça soit euh, da nga def rechargement ou nga fay c'est amul frais dans notre réseau loolu lu mat a signaler la aussi